tout droit Abass Confection indi na lu bees. waaw ñu ngi noonu blouson cinq pièces yaa ngi nii gis ngeen ko Zal mu ngi sol blouson bi. ak door sama copain sol mooy bi man la mi ma la loisir été ak hiver lépp Abass Confection da lay solal ah. baa ngi noonu 76 942 53 86. nee naa leen Abass nag mu nekk Dakar Grand Yoff côté arène Adrien Senghor ci tali Pamakaas bi. livraison partout au Sénégal ah. poids lourd bi commencé na samedi le 4 mars 2023 Assane Ndiaye bol production mo fi woote Papa ka so Nga bi dor Modou jam Terry danna na Njangar tamit a ɓeka a Papa nga sosok Libidor Ngan Kayar jenis Sara Ziguinchor Modou Saliou Faye le Zénith Modou Abou Diallo le Grand Ander na kamu na nagon la kamu mbaan fi amen jalori Desan Ibrahim Ndour kamu ñu ngi koy bëggee Maam mbaan sama gara sama xarit maa lay bëggee Maam Jéen di bege wa mbaan yëpp cay mbayang lum Ibu dor door jël la tànk soosoox attention kor tan da lay jaxabal soosoox noonu la dangereux ay waa Lamine Sarr États-Unis ka xool sa bokk bi li muy def Sokh Ablaye Ndiaye Gane

attention daaw da lay mboot de waaw waaw mboot na la top 5 ay waay ay ay ay ay saa waay mbëru Babacar Mané bi li muy def bi <laughs> Zilo TV moom moom loolu waa Ndiol Zia li muy def nii yow layo xuja nduure njom i ñoowa a refanga kooro lami njom lam le jiinanga te in wa keene o fi'ana piir ka xoja doomu ndeyu ndey joor moom la ñuy noonu amatrice ñu mag yi siyaar naa leen te xuja a njom a renga o kora lamin ñom lamna jifanga ta in wa jeno fiyana no pir ka ke moyanga gimna ke na magna Ablaye Ndiaye Serigne Abou Diouf Goro Pa Boucar et eh, le fils de saɗiyen saɗiyen o kende fo na tafa fakta gan kama jelle troisième avertissement abla ndia jalluna quart de finale poids léger yaa ngi noonu wala poids moyen mooy tànk dañoo tamu poids léger mais poids moyen mooy tànk ñool bu sana ak sal njaay bu kayaar kaw Ndiol Ndiol a ngi arrière loolu mérite na avertissement bu Sana mam nga pambuk ne wataye roga gid ma fa palange avertissement pour Zal Ndiaye bu Kayar waaye beneen combat bu neex a ngi noonu Zarko bu Mbasis moo na ndoos moo ne Zarko daan na moon buga tolax joto ramu mam nga fo mbug ne wata loga ngin ma papa lang waji nena njool de japu ci rasay du yoon mais anam mbër rasa tamit wax ci li wax ci lële la Lamine Petit Sélé war na na ko Lamine Petit Sélé en daan bu yomb bu neex mu ngay ree Sana Sall Ndiaye tey jom na ko Ndiol fam jàpp bàyyi na ko waaye daa si loxo bi cay mbayanga mbayanga futna cimaka paalo futnu fogodu la te xiina a langa la cay njom fo belelum njom fo ke yonta njom fo bagasum njom fo ke de safa faal ndax nam ndax nam te bo kiina anda keeɗo age leel arbitre monsieur le juge merci beaucoup. Ndiol. Thank you. Lola koy kal Lool Zal Njaay bu Kayaar Zal Njaay bu Kayaar an bu Fatick ak la bu Boyar ca ginnaaw beneen quart de finale mi-temps Moine bu Fatick à domicile la ne le frère de Aliou Nour Bata Sénégal Bata ñu koy ziar di ko bégee le grand champion de Fatick Léwo jël na ko moon attention waaye attention moon loolu fooram la de ci xabal bu garaaw la yor bu la ko dooree nga songole na moon moon bañña Léwo jàppu na moon jàppul songole moon bañaat tante na caxabal ba mu bañ mu ngi arrière di ko Zal Sana ak Zal Ndiaye bu Kayar ñëwaat nañ loolu jël na ko Njool daan na ko cey la waaye moon bu Fatick daan na lewo demi-finale poids léger wala poids moyen demi-finale si tànk yi Njool Sana Joal Zarko bu Mbasis Zarko moo ñu woon gannaaw bëre demi-finale bi war a dox diggante Lamine Petit Sélé ak Mone bu Fatick desandi bëgg waa Joal Aliou Gayna ko sow sama grand maa koy bëggee Zarko am na lu muy kaas moon Fatick Lamine Petit Sélé Zarko Mbassis Ndiol ñaari demi-finale yaa ngi noonu xanaa ñu delloo zoom bi ngeen mën seetaan lépp الانطلاقه وصد attention arbitre jox na leen ku ne avertissement Ndiol Zarko Lamine Petit Sélé Moon Moon jël na avertissement arbitre sifflé waat na benn attention moon

Ndiagar daw na jël ko jam teeri war na ko ndombo jangar jangar jam teeri jam jangar jangar sol na ko ñaari naax di ko jaay doole waaye jam teeri jàpp na ca ginnaaw arbitre bi waatal waaye dañoo bëre ba génn saaku yi jam teeri gën na njangar rajaxe

avertissement pour Zarco Zarko Ndiol bu Sana Thank you. Zarko ak Ndiol Zarko am na ngemb Zarko jàpp na Zarko njool bu sana temps ba jeex na njool da koy génne njool bu sana en finale Ndiol en finale Ndiol Lamine Pod di sele ndaw finale bu neex dem na Poro fekk ko nee naa day neex. ñu noonu quart de ci poids lourd Sidi Touré wala Sidi Apim ak Modou Ndiaye. dengan kembul Loco. Sidi en demi-finale. Dernier quart de finale. Dolce Abu Barni. Mbaru Pa Ada sisi Mbaru Babacar Mané. Borom Basul, Borom Espanye. Ablanja Chatu Robert Mbëru lamin Thiam borom Ngéeñeen borom somon borom dubai lamin Thiam namu nañ la mais xamuna namu ñu lamb nga namu da ngay muñ rek ay sa andi di profité di bëgg wa Ngéeñeen yëpp Antoine John papu sama daun ndey ini, bëgg naa la di bëgg waa Mbedem waa Njooreen waa Sasem waa Bakem waa Jamagen Las Palmas Risa Soleil Konya Bal Cité wala Cité Kamsate Ablaye Ndiaye père Vieux Ndiaye moo ko indi ndeysaan loolu daa am solo ci làmb mbër da ngay ay mag Ndiol Géant Ablaye Ndiaye mais kamay seen nii ca kaw tribune ba Nabou Diouf la séeri Ablaye Ndiaye cey lii Nabou est-ce que naa jumba jot ko Nabou ngi nale oh Ciss a zone ki nekk a yotam oh nekk si tribune bi di seetaan sa jëkkër di bëre non Nabou yow mun nga gérer lu ne waaye Mamadou Ndiaye le grand champion namu nañ ko lambu namu na ko Thank you. Ozean Lebu Ndoye Mali Morom Ndoye borom Bargny Ablaye le champion de Sikam Faye Fidèle ñamu doon àndal ñoom lay àndal ba tey avertissement ñoom ñaar ñëpp ñoom Bira Keita ñoom Bass Théré ñoom Ba Sidi Bécaye Traoré gis naa ko ci biir Béc sama copain Samba ñëw na tey daa na jël ko njool ko ak ñaari naax ñoom ne fundun na naanum fo moon sama nero tooñel ci Fatick lay xewee bu di na ndeysaan lamb la Ndiol Géant Ablaye Ndiaye bientôt la mi waaw waaw deuxième round Ablaye Ndiaye daw jël njool jël njool bañ cey mbayang fan si ka mi nuno yonta ke afrika nana nun ndek yo ñana ka siriñu atole amin ndeysaan xel dem ci Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf Ndoof borom ñaaxar fan si mbayang bu mag ndeysaan waaye Medoune Diouf fan si mbayang borom Touba borom Gandiaye borom Cupaan Ablaye Ndiaye Ndiol Géant Kottu

Modou Jam Terry daan so so daal di jël auto bi ñu dajé fi demi final Modou Jam Terry bu Pointe Sarène moo ñëwoon kana Papa Ngane Sokh Sokh dañ jàkkaar lool ndeysaan Mbaye Diouf Bikol production borom Bikol borom pontu Sarène ak Petite code bi mo koy Pape Ndaw borom ñaning gis naa ko si kaw turbine bi mu ànd ak ñoom Jean ak gars yëpp bëgg naa leen di bëgg waa ñoom Ousmane Ngom ñoom Joose waa bi bëri fàttewuma leen ñoom Alsane ñoom Ibou Laay waaye su ma waxee ñaning xel day dem ci jawrin géej yet ndeysaan géej siyaar naa ko Seri Awandur sama mag ju di jam dari sosok Awandur layu lorik Jai korbisine jena jamnya jawa ñaƴo wate bombes ko saɗa te gudduit demi-finale la kenn du ko sorxo sorxo Thank you. waaw Junior wax nga dëgg le 4 diggante le 4 ba le 4 la le 4 février le 4 mars seeni Aïssa Ndiaye tout droit waa ci yoon kay ngor fo ngore ngori korno njuk jaraaf ko jilas te mbasis lo ngoyta avertissement pour Sossokh avertissement pour Diam Terry sifflé waat temps Elimane Fandane waaye final raw gadu ci wet bi final gadu Elimane bu Fandane côté Mbour ak RTS bu Jifeer jump to the source of jam teri sol ñaari na wala ko ko ci kaw Thank you. RTS Elimane Elimane daan na ko Elimane bu Fandane jël na raw gàddu ba na mais arbitre mu ngi bëre nga jeexal combat bi de mais ñu ngi léegi nag nii ngay def ñu puusante fii après mu jeex. soo sox xott na ko mboot caxabal hee cay bi combat laa ilaaha illallaah hee Sokh daan na ko wala Diam Terry daan na ko Diam Terry L'arbitre, toi. doit. l'arbitre est confus Diam Terry daan na Sossokh diggante Sosokh ak Diam Terry daa dugal recours waaw nee nañ Diam Terry en finale recours bi jàppul demi-finale Ndiol Géant Ndiol Géant Sidy Ndiol Géant daan na ko Ndiol Géant en finale encore finale poids léger baa ngi noonu Lamine Petit Sélé campement ngee xoox ndeysaan xel dem si Toubacouta ñu koy jaale sa grande sœur Ndawa di ko jaale waa campement yëpp di ñaan yàlla xare ko àjjana oh métti na mais mbiru yàlla la yàlla bu bëggee ñun jaam yi dañuy xanaa di ko ñaanal rek fam jëm gënal ko fi mu jógee moom ak ñi mu fay fekk yëpp kap maa ngi dëkk Sele Mele le grand champion bëggee Fadiga yaa ngi si Jool bu sana Joal Sana cham le grand capitaine jóge naa ko fii ci Fatick lay xewe dëkk Jackson Ndiaye borom Ndiaye dëkk Biram Ndebane Lewal le grand mara le grand saltige Lewal bëgg naa ko Ngosit Ndour nee na ma Lamine sa lamb ji yëpp man maa ko géré maa la indil bant indil la mbaal bi ak ban de maa ko delloowaat Ngosit maa ngi lay bëgg di la siyaar di apa wax mama yëpp Mamadou Diouf fii ci Fatick maa koy bëggee borom njom 100 pour cent le grand amateur Mamadou Diouf maa lay bëggee ndeysaan les gendarmes Sengane Mbodj doomu Diala mu ko ca jurbel seetaan si na ànd ak doomu ndeyam Assane Diop borom fa saaxoor borom Foundiougne fa saaxoor dëkk Cédric Marcelin Ndour mbin naa la waaye sama grand frère l'initiateur du groupe Fans Club lamine TV Joël maa ngi lay bëggee Njool Lamine Petit Sélé Lamine Petit Sélé Njool jël na ko dugub bi baaxul mu koy busulu arbitre Lamine daan na ko Lamin Petit Sélé daan na bu yow mi bëgg tisi bu rafet wala nga yor boutique bëgg a jënd jaayaat demo Pikine marché Zinc fekk fo waa Jesner oh, bi ni baxa bi ay cristal la rafet na fess na motif bes tak la aussi jaune or bi amna ay couleur yëpp bi rouge sang bi la mais motif yi bokul tissu ba paré peri du ben bi ni moy mo champagne couleur bu rafet tamit bu tegu ci tam ni moy ci tiktok motif bes tak la garam bu blaser ak musor col bi mo nek ni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 fii ci Fatick samedi le 4 fév 4 mars 2023 4 février Diam Terry moo fi final woon jël ko 4 mars bu final waat jël na Ndiol Géant sama père Gora Diouf tafanding bëgg naa ko waa Cheikh Sadibou Mbodj le policier ca Kaolack maa koy bëggee Serigne Diagne policier fii ci Fatick Idi grand Ablaye Diouf maa koy bëggee Diam Terry dalay kottu daan na ko Ndiol jël na lambu ja Ndiol jël na lambu ja 19e finale pour Ndiol 19 finale ñaata drapeau 19 finale 16 drapeau